anta rabbi wa mundani bi midadi magazuri bi janadi bi midadi anta rabbi wa mundani bi midadi magazuri bi janadi bi midadi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala saydina muhammadin wa salim jërëjëfe sëriñ Touba jaarama maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi fii ci centre culturel régional bu Njaareem ah, ci euh, safar gi nga xamante ni bii madame la directrice madame Yacine Ngom moo ko organisé woon ngir santale Serigne Touba boromam ànd ko ak acteur culturel yi soxna Yacine yaa ngi en direct ci Touba Allemagne TV ak ci Moubarak TV ñu gis ne wax dëgg yàlla ça a été une grande réussite ci don de sang bi nga xamante ne bi daawul am démb ak barki démb nga boole ko ci safar gi ak durus gi ak sant gi ak taxawaayu artistes yéen ñëpp lan mooy secret bi wax dëgg yàlla soxna si. doon taalibe rek doon taalibe rek mooy secret bi. waaw boo nekkee taalibe moom initiative yi day bari rawatina nga yor secteur bu mel ne culture secteur bu mel ne culture nag li ma koy faral di waxee dafa transversal. dafa dafa ëmb lu bari culture dafa ëmb lépp lépp ëmb ko da ne culture et société ne culture et éducation ne culture et religion. tey nag ci aspect culture et religion fi lañ taxaw tey lii ñuy def nii dara génn ci suñu liggéey muy bis boo xamante ne nii ah dañu koy santale ku tedd ki eh, muy bis boo xamante ne nii dañuy wan population wu Diourbel que ne culturel. du rek ñi nga xamante ne nii ñagal ca folklore ba waaye religion da si am pàcc te xam nga culture Diourbel mënoo ko liggéey rek génne si religion mënoo ko liggéey génn ci génne ci yoonu Cheikhul Khadim mënoo ko liggéey génne ci yoonu maam Cheikh Ibrahima Fall projet yi bari na macha allah ndax man damay faral di wax ne njaareem gii nga xamante ni Cheikhul Khadim def na fi fukki at ak juróom. li koy développé dëgg dëgg dëgg mooy yoon wi ñu topp ko muy le tourisme religieux tourisme religieux boobu nag li tax ma di ko wax mooy maanaam fii dafa am loo xamante ne nii dëkk yu bari amuñu ko ndax bagage cheikh bi yëpp ñoo ngi fi bagage moom Cheikh Ibrahima Fall yëpp ñoo ngi fi man ni may gisee musée de Quai Branly wala musée yi nga xamante ni ñoo ngi Turquie wala musée yi nga xamante ni ñoo ngi un peu partout dans le monde boobu musée laa gis fii si Njaaréem te bu bopp bis bu amee muy musée boo xamante ne nii murit yi ñoo koy tëyal seen bopp ñoo koy saytul seen bopp ñoo koy càmbaral seen bopp bu boobaa di ngeen gis ne économiquement Diourbel day day day développé day dem parce que damay faral di wax ne ñaar ñooy développé Diourbel culture ak artisanat ñaar yooyu rek ñooy li nga xamante ne nii ñooy développé Diourbel te religion bi génn ci mi ngi ci biir. ñu gis ne ba wala ñu war a laaj lan mooy sabab bi. parce que yow amoo obligation def safar amoo obligation def safar mais gis nañ ne vraiment da nga cee taxaw ñu gis ne ñëpp dañ la si fekk si ñëpp dan la si fekk si mu nekk une grande réussite vraiment yow lan mooy xamante ne bi man secret laa ko mën a tuddee ba nit ñëpp jàpp si ak ni mu réussir macha allah je touche du bois ak lan mooy gis-gisu Yacine ci kanam lan mooy taxawaayam ak lan la war a mën a séntu fii ci kanam ak màggal yi ñu jëm. amul secret amul secret xam nga man damay ñëw rek Jurbel gépp adopté ma Jurbel gépp bëgg ma ma woote ne damay safar yéen ñëpp ngeen wuy si ma yéen ñëpp da ngeen a ànd ak man ci liggéey bi liggéey bi du man yéen la xëy na man maa fes nii rek mais lu ci bari yéen yéen a ko def ma ni damay woote safar damay sant Cheikhul Khadim ngeen ne ah loolu dañ la ciy jàppale kon loolu la rek ak taalibe la rek goo xamante ne dañ ko indi fii ci njaareem muy liggéey fas yéene liggéey Serigne Touba loolu loolu rek mooy secret bi amul amul leneen projet yi nag bari na comme ni ma ko waxee li fi nekk bëgg naa ko fésal ndax doomu aadama yu bari xamuñu li nekk fii di nekk Jurbel ni ñuy wax euh, patrimoine bi fi nekk ñu bari xamuñu ko murit yu bari xamuñu ko sénégalais yu bari xamuñu ko diaspora bi ñu bari xamuñu ko lool lu mat a la lu mat a wane la te amal bëgg nañ ci amal liggéey bu yaatoo yaatoo yaatu incha allah projet yi yaatu na yaatu na bari na mais lépp mi ngi ci yoon wi donc kooku mooy soxna Yacine Ngom di directrice su centre culturel régional bu Njaareem initié woon safar gu mag gile nga xamante ni bi daf cee indi innovation muy don de saa boo xamante ni bi defal na ko hôpital Indus Rogué bu Njaareem maye fa lu plus de cinquante et quelques de sang pour ñoo xamante ni bi maa la day taale su fekkee ne war nañ koo jariñoo ci màggal gi ñu jox leen ko ñu gis na également monde culture monde des artisans ak des artistes ñëpp wuy si nañ ko mu nekk une grande réussite mu doon fii ci centre culturel bu Njaareem ñu ànd ko ak euh, Touba TV Allemagne wala Touba Allemagne TV ak Moubarak FM à vous les studios